here um, at our storage all set for the 2020 drive-through back to school and grandma appreciation day as you can see here are the backpacks I mean we are putting in the school supplies in them uh, right now uh, we have 200 um, and something backpacks that we are putting together uh, for the kids what are you doing Mohammed? opening the backpack that's your rule here you open and you put it down there is that what you're doing too what are you doing you, put in the supplies inside yeah you see the party is putting the supplies how about you by what is your rule opening the bag and opening the backpack you open in the plastic and then you open the bag yeah and what is your rule? Stuffing the bags. Stuffing the bags with what? School supplies. With the supplies. Hmm. Then putting it in the boxes, right? Yeah. That's what we are doing. So putting the supplies. You can see we have glue. Have this bag that has everything: crayons, um, erasers, rulers, sharpeners, pencils admin and all of that. So as you can see, um, we are putting the backpacks together. Several boxes are done. These are the boxes of the supplies right there. And these boxes are for the grandmas now. These boxes right here. These last boxes are for the grandmas. So as you can see, these are all backpacks. We have over 200 and something backpack that we are putting together. I mean here and we have to be finished with all of them all these boxes at the bottom are already filled up with bags that are already uh, put together with the supplies and everything as you can see here go the backpacks these boxes are already filled up so we are doing more. As you can see, Gambian Talents Promotion 2020 Back to School and Grandma Appreciation Day. That's what we're getting ready for right now. The food and everything is ready. These are the supplies. As you can see, I mean, the other day we showed you the I mean, ice cream, we showed you the candy, the cookies, and all those stuff today, as you can see. These are some capuchin juices. This is, um, uh, here are the chips. I mean, trash bags. I mean, the water, soda, and all other stuff. So, we are all set. That's the tent right there. So, we are all set to do it. Seattle back to school. Seattle Back to School nekk programme boo xam ne programme bi nag every at bu nekka dañ ko dee def bii nag mooy ñeneenti at depuis bu mu sasoo ba léegi ñu faral di ko def di tax yi di kontaan di gis seen bopp ci seen dëkka di gis seen boppa si àdd ak cosaan. tax xale yi ñuy kontaan di leen jox ay présents di leen jox ay euh, gifts yoo xam ne ñoom seen boppa ñoom ndaw yi euh, dañ koy nama di ko am dañ siy gis seen boppa ñoom it ñu gis yeneen ndaw yoo xam ne seen yaay yi ñu ngi jóge Gambia ñoom ñëpp ñu ñëw together laamisoo waxtaan feccoo reetaan dara daaxut ko Seattle programme bi nag di Seattle back to school euh, nekk na programme boo xam ne ndaw boo xam ne nama nga ko ndaw boo xam ne géej nga koo gis dangay gis dangaa toog di reminis maanaam at bi nga xam ne mos nga see ñëw soo si ñëwatatee sax di nga ne a ah, man de nama naa dara kon nag gis ngeen ko xale yi kontaan mag ñi kontaan ñëpp kontaan si biir dëkk bi daal xale yi kontaan mag ñi kontaan moo ñu daxa annual back to bi nag lan moo ko tax a jóg ku def seen kanam yéen ngeen kontaan ñun ñu kontaan mag ñi kontaan waaye ndaw ñi kontaan destia nag ñu boole si lu si bokkut muy mag yi nga xam ne ñu ngi si biir Seattle nekk mag yoo xam ne wax dëgg fa neex yàlla yàlla leen baaxal ñu nekk yaay yoo xam ne yaay yu baax nekk yaay yoo xam ne kenn du ñoom nekk yaay yoo xam ne jàppale neen seen doom seen doom yi su nekkee fii si biir Amérique yéen yéen a tax seen doom yi ñuy taraay parce que yéen a ñooy téel suñu ay doom ñu leen naa wax jërë ngeen jëf di leen wax ngàcca ngaalaama moo tax nag this time around si back to school bi ñu nar leen a delloo njukkal war leen wax ne yéen yaay yi seen dunda am na njëriñ seen jàppale am na njëriñ ñun doom ñi kontaan nañ si yéen waaye comme noonu leen ko waxee rek mbokk yi saturday bi di on the 29 august si leen def programme bu rëy fii si fi nga xam ne nag mooy Seattle Seattle nag ñu def fi programme bu rëy di Seattle metro area foofu lañ ko def programme bi nag this time around dañ ko def si yeneen i anam bàyyi xale yi ñu ñëw ak seen ay waajur waaye tey duñ toog comme nun daan toogee di waxtaan comme nun daan waxtaanee parce que ah coronavirus ba waral lii waaye gis ngeen xale bu nekk am na baagam xale bu nekk am na ay gifts yoo xam ne ñu ngi si seen biir baag ñu jëndal leen seen ice cream jox leen seen ay booga jox leen ay naar lépp loo xam ne ndaw yi nama nañ ko rek ñun ñu defal leen ko xanaa neex xam naa ne nag ndaw boo xam ne ñëw nga fii war ngaa kontaan bépp foyekaay boo xam ne ndaw soxla na ko euh, ñun ñii jox neen leen ko kon nag xale yi yéen ngeen kontaan ñun loolu ngeen bëgga ngeen foyee xam seen yaay yan façon foyee leen daan foye time bu nekkee ndaw loolu dafa neex kon nag lii la yaay di daan foyee bu nekkee ndaw ñu gis nag yaay yoo xam ne gëj ñoo gisante seeni ay morom euh, su ko defee nag ñoom ñu wane seen doom si yeneen famille seen doom loolu tamit dafa tax xale yi ñoom it neen ñu xamante su gars yi duggee si ay bitik dina ne moom yi xoolal kële ki nga xam ne tase woon naa ak moom si Seattle back to school bi kon nag back to school dara daaxut ko every year ñu koo def ñu ne ko def ko daaw fekkee déwén war nañu kon nag xale yi yéen yi na tax ñun ñu nekk fi si yéen la ñuy dox si seen bëgga la ñuy dox noo leen ko buggee rek ñu defee ko noonu kon nag ndaw yaa ngi nii jaajëfal képp koo xam ne nag ab volontaire nga ñëwoon fii si Seattle programme bi di Seattle back to school bi jàppale ñu coronavirus bi nag ñëpp a complain ñëpp ñu ne na corona dem su ko defee ndaw ñi mun a enjoy seen boppa xoolal leen ma lii mu ne ko xoolal leen ma lii foye boo xalaat mu ngi fii si biir programme bi. What's your My name is Gloria Walton. Gloria, why are you here today? I am here because I am the chairperson for the group, mm-hmm. and I just wanted to come out and see how things were done, and I appreciate everything that they that Mr. Pa Usman is doing. So, how um, do you see the event so far? Busy, busy. Uh-huh. You need a few more volunteers, mm-hmm. and it could have been uh, ran a lot easier. We needed two people for the cars, mm -hmm. so we just have to work on little things. Mm -hmm. Okay. So what do you think we will do differently next year or next time? Next year? Mm -hmm. hope to, Hopefully it's sunny and not raining. And not dry. And no and no masks. Know, right? <laughs> no coronavirus. so can you tell us, as the board chair of Gambian Talents Promotion, what are some of the things that um, you've done so far uh, that you remember? Well, so far I helped PA get our um, members together so that we can have a board. Helped him do the final sheet for everyone to fill out for today's event and then come out and volunteer to do each one of the jobs that's here. Um, well, uh, um, Gloria Walton, uh, what inspired you to be part of this effort? Well, just meeting you and knowing that you have a good uh, cause to work for, and you ask for a lot of volunteers, but you you ask more, you do more of yourself than you ask of others. So I appreciate that. How did you come in contact with Gambian talents? Um, I was having a yard sale. You walked past my house to buy some stuff. You went home, got your car, and I gave you. I told you to come back tomorrow. Anything left over, you could have. And what, what message do you have for the community? Treat each other well, love each other, and support each other. Volunteer when he asks you to volunteer because it's important.

yàlla defal la jàmm yëpp doy na xoolal suñu umba yi lu ne lañ doylu am nañ lépp wallaay lekk yi doy nañ bagage yi doy nañ xale yi kontaan nañ mag ñi kontaan nañ ñëpp kontaan nañ xanaa di la ñaanal yàlla rek yàlla fay la yokk la yokk la kàttan li nga li nga mun renel nga mun lu ko ëpp a déwén ci barke salaatul fatiha amuloo morom yaru nga baax nga respect nga ñëpp respect nga mag ñi wax dëgg neex yàlla fi ñu fi ñu sentu woon ñëwuloo fa de wallahi alhamdulilah sant yàlla ba mu bari Diouf yal na la yàlla fay yàlla lafal la cat musal la ci seytaane musal la ci musiba musal la ci balaa musal la ci noon nag ak pexeem ci darajay nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam waa kay jërëjëf Diouf <laughs> ñu affecté euh, tax na ba nga xam ne dañ change plans indi ko si euh, place bu mel ni euh, Seattle metro area ba nga xam ne family si ñoom it neen ñooy ñëw ñu jox leen lu leen naa jox ñoom it ñu dem taxaw yeneen site loolu leen am this time around Eh, gis ngeen ko lekk yu bëree bëri am na fi eh, gis ngeen eh, lekk boo xalaat am na fi lekk yoo xam ne ñu ngi ko togg si saasi muy fresh food si ngeen gis ñu fry ko si seen kanam ñu lakk ko si seen kanam ñu barbecue si seen kanam ñu grill waaye lekk yu sedda yaa ngi fi xale yi nama ice cream lool bëgg ko lool ñu jël ko indil leen ko jox leen afra yi jox leen grill yi jox leen pizza yi xam naa ne nag ndaw yi dineen nama yu mel noonu parce fu mu nekk nii place yu bëri mu ngi tëj Gambian Talents TV nag koy def def saa su ne uh, di ini xale yi su ko defee nag ñu leen a laajte ay question uh, di leen jox ay tontu yoo xam ne uh, gars yi dañ laajte yoo xam ne gars yi dañ koo tontu si tontu yooyu képp koo xam ne am na tontu dinañ la dee jox prize dinañ dee jox gars yi lu mel ni laptop dinañ dee jox gars yi mel ni ay phones ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ ko dee jox ndaw yi ba nga xam ne nag faral neen di laajte xale yi questions yu mel ni kan mooy suñ président bu njëkk lan leen xam si président boobu président président yan ñaata président la gambia am ah, dëkk yan la gaay xam si gambia nekk america nak taxut la nag doo xam gambia kon nag seattle back to school bi mooy waral xale yi di xam ah, seni dëkk seni waajur fu mu fu ñu jógee Fatmata Ndiaye waaw uh, mère Ndiaye lan nga fee ut ah tey moom xanaa baaxante rek mm-hmm. sa liggéey bi rek fet bi ci loolu la ñoo toppa de ba tey di tranga bi mënut a jeex ah tranga bi mënut a jeex yàlla na yàlla fay sa xol yàlla saamal la saamal sa njabooti yëpp ñu at bu ees bi biñ duggee nii yàlla ñu am ci jaama ñun yëpp yàlla may ñu fan bu gudd wér bu yaram faral suñ baakaar yëpp suñ kiifal yee jeetu jiitu tamit yàlla neen yàlla yërëm yàlla xaareen aajana ci barkeeru yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ trop maire yëpp kontaan nañ ñu ngi laa ñaan jërëjëf waaye kontaan na kontaan nañ tur bi nag jiki jiki maane waaw ah, lan nga fee ut tey ah fii ada back school bi de indi indi xale yi ñu génn ci biti ah yaa bi mooy sa first time nga attend back to school bi na mos nga ko ah, attend 2018 ak 2019 tamit attendoon naa ko 2018 ah, and 2019 waaw ñëwoon naka nga gisee bi compared to 2018 and 2019 ah bi moom is kind of uh, non 2019 bi moo daax coronavirus bi na dem rek nit ñi mun a fiesta xale yi mun a <laughs> génn ci biti yaa loolu la ñoo ñaan daal. waaw <laughs> baa bi ci bële hot dog yeeg bogas yi xale yi su nekkutoon corona bi beneen affaire. you see eh, ñu demoon si park bi ñuy jump around everywhere. that's the that's the most amazing part waaye yëpp baax na nag kontaan nañ te am nañ baax park ice creams and so many food so yeah. what do you enjoy the most. Ah? what do you enjoy the most. I've seen people that I've not seen for a while, so that's amazing. Some of my friends serving foods over there, so which is nice. <laughs> what would you want us to do differently next time? Um, actually, I mean, it, it's pretty good. I, am just hoping the coronavirus, you know, goes away and all these pandemics going on in the world. So, yeah. Adama Jallo. Adama Jallo. Adama, which country are you from? Guinea Conakry. Guinea Conakry. Why are you here today? Oh, to pick up uh, uh, the backpack for the children mm-hmm. uh, school. So how do you see the event? The event was so good. Everybody has the backpack and the supply. Oh, okay. Yeah. Is this your first time attending the event? Yes. Oh, okay. Yeah. Hmm? Are you going to bring? Are you going to bring uh, the kids next time? Yes. It's allowed. Mm -hmm. Yeah. Mm-hmm. What do you want us to do differently next time? Uh, the same. Oh, okay. Yeah. <laughs> What's your name? Omar Jiba. Omar Jiba. Omar, why are you here today? Mm, because my mom told me to come. You came to attend the Baptist school? Yeah. And how do you see it so far? It's nice. It's nice. Are you having fun? What's your best part? Uh, I guess the food. The food? Yeah. Which of the food do you like most? I think the burgers. The burger? Yeah. Good. Yeah. You have a backpack. Are you the one that pick? You like gray? Mm, yeah. Okay. Hmm, what would you like us to do differently next time? To uh, make the place bigger. Bigger. Yeah. Okay. All and. Right probably make an area like last time. The last time? For kids to play. Mm -hmm. Yeah. Guess what? We have a lot of toys, we have a lot of games we bought, but you don't know it's coronavirus era. What do you have to say to coronavirus? Look in the camera and talk to coronavirus. Why this year? Why? What's your name? Ibrahim Jang. Huh? Ibrahim Jang. Ibrahim Jang? Mm -hmm. Um, you have a toy with you? Are you happy? Yeah. Did you eat any food? No. You didn't eat any food? No, I just I just only ate cake. You ate pizza? I only, pizza? only ate cake at my house. Yeah? Mm -hmm. Was it good? Mm -hmm. Good. And? Muhammad. Muhammad what? Job. Why are you here today? Um, because of drive-through. Because of drive-through what? Um, I don't know. Hmm. Are you having fun? Yeah. What do you like the most in this event? Food. The food? Mm -hmm. Which of the food? Oh, burger. The burger? Mm-hmm. We saw you holding a burger and a pizza at the same time. You have pizza and burger. Right? Mm -hmm. Do you have a backpack? Not yet. You don't have a backpack? Not yet. Oh, okay. What would you like us to do differently next time? Not really anything. Not really anything. Just don't change the food. You, and you're gonna come next time? I think so. You will come back. bi nag. Rohi Mbuub. Rohi Mbuub. Ah, pour volontaire indiwaale xale yi pour back to school bi. Mm-hmm. yaa. ok nga gisee back to school bi. Ah, ah, this time mooy suma first time ma ñëw waaye neex na trop ndig xale yaa ngi am foon lekka yi bari nañ books yi bagage yi yëpp gars yi mu ngi bari soo ngee sant yàlla trop mm-hmm. lii moom ñu laa ñaanal yan yaaga. yal na yokku ndig dégg naa every year daf dee am this is the fourth year waaye this is my first time pour ma attend ko tey so moo ma ne ma volontaire waale ma gis naka la mel ma support community bi so ñu ngi laa gërëm di la sant di la wax ne jërëjëf si li nga dee def si community bi yal na la yàlla fay yeah thank you um, uh, a ah, ice cream mm-hmm. waaw loolu laa jox nii xale waaw aha it's going good waaye <laughs> mu ngi mel nag ni xale yi ñëwuñ corona baa ngi yaaxa yëpp dégg naa xale yi dañ daan uppa nii nag waaye yu bari tamit ñu ngi seen moto yi dañ am pour wax gaay ñu waaje ñu ñëw jël ice cream bi waaye xale yaa ngi ko enjoy mm-hmm. yaa oh, uh, ah, di wax ne ña ñëpp di génn si rek di support kon lii daf di am every year so ñun ñëpp ñun ñëpp Gambia lañ jógee ko Asie Africa ñu ñëpp benn lañ war a nekk mm-hmm. so maa ngi ñaan ñëpp ñuy génn di support di ñëw Wow. Thank you very much. How are you, sir? I'm doing good. How you doing? I'm all right. What is your name? Uh, my name is Surahata Fati, aka Solomon Hydra. Mm-hmm. Yes. Solomon, what brought you here today? Uh, I'm here to uh, pick some school supplies for my kids and my neighbor, and I'm going to volunteer here for like uh, 30 minutes before I head to work. How do you feel Gambian Talents Promotion organizing this type of event for the community? Well, uh, I'm really proud of uh, and his crew uh, to volunteer and put such a, uh, a, program together to help the community, not even Gambians, but just entire community in Seattle here. I'm so proud of them. They are doing a good job. Okay. What message do you have for the community? Uh, the message I have for the community, uh, let's come out and support to volunteer. And this is our problem. Gambians, uh, it's very hard for us to volunteer, but Let's come, if somebody puts something like this together, come and volunteer for 10, 20 minutes, 30 minutes, one hour. It helps. It helps other communities to come together. And this thing is very important, especially Gambian community. I wish we have this thing here since 1998. But thank God, finally, uh, things are working together. The, uh, the, the Grammar Association is here. <laughs> they are, they're always participating. And it reduces a lot of, it reduces it reduces a lot of stress from uh, <laughs> our, our, our, mothers here because this country is so stressful. So if you put these all, all, all folks together, they communicate, they do conference call, they do Zoom meetings, it reduces a lot of stress from them because here uh, people don't visit each other a lot, especially in this, <laughs> in this period of this pandemic, Corona, Corona. Yes. <laughs> Thank you. Yeah. You came to attend the back school? Yes. Are you having fun? Yes. What's your favorite part of the event? Um, playing with my cousins because I haven't seen them in a long time. Oh, you haven't seen your cousin in a long time. Which of your cousins? Uh, Fatu, Muhammad, and Evie. Okay. And um, what? Okay, you like seeing them. Did you enjoy the food? Yes. What did you eat so far? Um, pizza and a burger. Oh, okay. Did you get a backpack? Yes. Oh, okay. Wow, what's your name? My name is Baby. Baby, what uh, what brought you here today, David? Um, I'm part of the WhatsApp group on the Gambian Association, and I really appreciate everything they are doing for the kids. And our mom is really helping us to, like, so we can go to school. I mean, I mean, I'm going to school and I'm working, but our mom is really helping us to take care of our kids at home while we taking care of our work and school. And then this one is, I really appreciate it because it just helped uh, the parents, parents. you know, really do help us too. Thank you. So, what message you, you want to send to the, those who don't make it here today? I encourage everybody to join the association because we have to be in ones. We all African. We all came from the same uh, thing. We have to like help each other, so the association can be like more powerful and then help each other. Right. So yeah. Young man. Abdullah Cham. Abdullah Cham. Abdullah, why are you here today? Uh, cause I came to volunteer, but then I found that there was food here, so now the food. <laughs> so you are enjoying the food. Which of the food do you get? So I ate two pizzas before this, and I'm eating a burger right now. Oh, okay. So are you enjoying the event? Yes. Okay. What would you like us to do differently? Uh, nothing. Just keep it the same. Keep it the same. Yeah. Oh, okay. Uh, are you going to volunteer next year? Yes. man Ndumbe laa tudd. Ndumbe Ndumbe lan la indi ah, back to school celebration bi xanaa biñ def every year. Wow, wow. waaw. ah so lo wax si mbir affaire bi nag loo wax si Gambien si. xam ne lu la mhm. you know Pa Ousmane a nga def lu baax wax dëgg. Mhm. xale dañ dee kontaan mag itam duñ ci dee mer. Mhm. waaw. ah Pa Ousmane alhamdulilah sant yàlla. door nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim egal ko ci alhamdulilah alamin back to school sama du la. ak grandement association bi tey lañ am wan ya yëpp ak yow law la cat yan nga ko di ko célébrer every ya su neexee yàlla bii yoon next set na fekk coronavirus bi jeex ñu def ko si paak bi boobu moom waxuma la sax musicien yeeg imaam yi Gambie de waaye be Sénégal ak West Africa ñëpp a koo fekkee si keroog incha allah jërëjëf kontaan nañ mairie kontaan nañ xale yi kontaan nañ papa yi kontaan nañ yaay yi kontaan nañ. waaw kay lan moo leen gën a here um, at our storage all set for the 2020 drive through back to school and grandma appreciation day as you can see here are the backpacks I mean we are putting in the school supplies in them uh, right now uh, we have 200 um, and something backpacks that we are putting together uh, for the kids. nga koo jël denc ko sa biir ne kenn du ko xam di ànd ñoo yow waaw waaye danga ñëw tasaare ko. kon nag ñuy jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu dooleel si programme bi ñu mel ni GHF uh, Sohami's Country African Supermarket Divas Beauty Supply ki nga xam ne mooy DJ's Kitchen ak. Uh, ki nga xam ne mooy Bantaba restaurant and Jaynaba Dabo uh, ñii nag ñoo ñu dooleel bu baax a baax a baax ba nga xam ne programme bi uh, taxaw uh, ni ngeen ko gisee mu nekk programme boo xam ne bu neex ñëpp kontaan waaye duñ si fàtte ñi nga xam ne nag ñooy waa community bi di waa Seattle yéen daal kenn du yéen rawatina nag ñi nga xam ne ñoo ñëw dooleel ñu muy suñu volontaires si di leen wax jërë ngeen jëf bu baax a baax a baax di jaajëfal parents yi maanaam ñaari xale yi nga xam ne ñoo indi seen doom ku ñu ñëw si programme bi suñ mag ñi nag maanaam sun meer ñi ñi nga xam ne ñoo nekk fii si Seattle ah, ma leen naa wax jërë ngeen jëf bu baax a baax a baax amun luñ leen naa wax lu dul di leen gàcce ngaalaama di leen ne seen dunda am na njëriñ waa Seattle bëgg nañ leen waaye wa waa Gambian Talents bëgg nañ leen ah, te it ñu ngi leen naa wax grandma we love you so much maanaam bëgg nañ leen ba fu bëgg a ah, am comme rek noonu lañ ko gisee mag ñu wax Euh, xale yi wax ku nekk gis seen boppa si programme yi euh, tey jii suñ volontaires si nag dinañ def ni waxtaan ak gars yi euh, si naka la gars yi gisee programme bi nga xam ne moom leen def nit yi nuñ ko gisee ñoom it lan mooy si seen xalaat lan leen fa ne loolu leen war a def su ko defee lii mu nekk programme boo xam ne dañ koy màggal at bu ne fii si Seattle kon nag dégg ngeen ko jigéen ñi wax góor ñi wax waaye duñ am foofu noonu rek programme bi nag nekk na programme boo xam xamne dafa ini wantel ah, xalé yi ñoomi neen ñu xamanté su ko defee képp ko xamne dem nga ci supermarket mete dem nga ci mini market ah, so gisé sa beneen moromi gambien di nga xamne ki kii gambia la jogé ki dal olof la mbete ki sosa la mbete ki njaago la mbete ki badi bunka la mbete ki olof la mbete ki tukulor la ah, mbete it balanta la mbete ki jola la ñoomi neen ku nekk si gaay mu gis bopam si laka bi nga xamne mom la yaayam kon nak li dal dafa neex aada cosaan dara daaxut ko xamal fi nga jógee balaa ñu laa wax yow yaay kan euh, kon nag Gambian Talents lii la moo defal xale yi euh, gis ngeen ko si kanami xale yi xale yi kontaan neen gaa yaa ngi wane seeni kontaante euh, ñii si gaa yaa ngi ree gis ngeen xale yi ñii namoon nen lekk yu ni nii ma xale yi ni ñuy smile gis ngeen xale yi xoolal ma gaa yi kanami lii dafa neex ñu gis ki nga xam ne nag mooy Sourahata Faty moom it mu nekk volontaire moom it di oo community bi yëpp ñi nga xam ne ñoo nekk bii Seattle ñu ñëw su ko defee ñu jàppante nekk benn lii dafa indi bennoo euh, si ab gox kon nag euh, ñu leen naa ñaax ñu gis leen beneen at euh, beneen at buy ñëw incha allah yàlla may ñëw si jàmm ju bëree bëri su ko defee ngeen mun a gis programme bu daxa bi wax naa leen ko GTP rek saay bu nekk ñu ngi xalaat nu ñooy externe askan bi seeni seeni kontante seeni xarañteef si li ñuy def all the time ba pare tamit euh, programme bi tamit nekk na programme boo xam ne euh, dañuy jàppalante ak euh, community bi su ko defee Gambien si nga xam ne ñoom it ñu ngi def business si community bi ñu ne ñu dem dooleel leen ñu ne ñu dem jàppale leen ñu jëna suñ ay bagages foofu noonu su ko defee ñoom it seen business bi da gën a dem si kaw Gambien si nga xam ne ñoo ngi fi tamit. programme bu mel ni Seattle back to school euh, ba tey back to school bi dina dee tax gars yi ñoom seen boppa ñu gis seen boppa si seen i business ñeneen yi tamit xam ñii yan façon bagage lañ dee euh, jaay fii si biir school bi euh, ba yit fii si biir Seattle back to school GTP connecting Gambians in Washington with local resources and bridge the gap between us and the wider community. Connect Gambian talents. ñun Yobu, uh, leen Yobu, back to school 2020 Lee Dal mu